ñu nekkoon li nga xam ne mooy le nouveau référentiel des politiques publiques mooy li nga xam ne moom lañuy togg ba nga xam ne tey lay doxal senegal ci juróomi at yi di ñëw foofu lañ koy tibbee ñu ngi ci liggéey boobu te demuñu jéggaani ko ci biti de ñoom bañ koy def dañoo dem jël benn cabinet bu tudd Mackenzie fay ko 3 milliards. ñaari at ñu la ñu fal la 2012 ba 2014 ngay doog génne PSE ñun ñu ñu fal 2014 2024 septembre 2024 ñu génne leen suñu document. septembre 2024 ñu génne leen ko incha allah te demuñu ko demuñu ko jéggaane ci biti doomi réew mi ñoo koy defar ba mu mat sëkk kon ñun duñu ñoom wax ji nañ ko bàyyi seetaan leen lii ñëw rek léegi wax ji dootul bëri de parce que saagaa leen desoon ak xaste te dootuñu ko def bind di su sala fi desoon te duñ ko def nañu dem sàkku xam-xam duy seen xel yi ñëw taxaw ak ñun ñu discuter ci suñu programme lool rek a fi des ñaareel bi nga xam ne ñoo ngi koy togg mooy vision Sénégal 2050 ndax kuy defar réew da ngay gis fu sori àdduna bi taxawatul ci benn bés les choses vont vite donc ñi ngi togg document bi ñuy wax Sénégal vision 2050 nga xam ne day leer nañ ñu xam chaque jour chaque semaine chaque mois fañ jëm président Bassirou Diomaye fay jox orientation yi ñu def plan yi man nag en tant que chef de gouvernement maa ngi jéggalu ñu mu neexul ma coordonné ko nag daal di xëcc nopp ministre yi noonu lay doxe plan d'action gouvernement bi def les plans d'action yi nga xam ne ministère bu ne ci la war a doxee daa di togg nag li ñuy wax filière mooy filière yi Sénégal amul benn filière du mbay du càmm du euh, industrie du pétrochimie amul benn filière boo xam ne soo ko jëlee Sénégal mun nga ne am nañu chaîne de valeur complète amul kenn mënul développer réew ci loolu moo tax mënuñu exporter mënuñu jaay ci biti suñu lépp a ngi jóge ci biti bu nit ñi sëqatee ci biti ñun ñu soj loolu moo tax fa ñu jëm xam nañ ko de la ñeneen ñi def ba développer dinañ def lu ko raw ba def ba romb leen ñun foofu lañ jëm kon lii nag lii ñu boole kook nag continuer di gëstu ndax suñu tekk-tekkaaral bi bu ñu jàpp ni faiblesse la de ñoo ngi gëstu semaine bii rek lancé nañu ay audit plus de 60 structures yi audité yi nga xam ne jotoon nañ ko def te mu nekk ci cour des comptes nekk ci IG e, nekk ci leneen ak leneen dañ ko génne teg ko ci table justice mais justice bu ñu defar bu ñu bu ñu bale ba noppi ndax xam nañ li fi xewoon ci justice bi buñ ko balee ba mu set jël les vrais magistrats ñi nga xam ne jub nañu dinañu appliquer loi ni ko yoon waxee buñ leen tegee ba pare la ñu war a def yëpp dinañ ko def ci ñi luubaloon alalu réew mi lépp dinañ ko teg ci yoon xam nga dama leen di wax nii man mii lu daj nañ ko pour ma bañ a nekk candidat lu ne fañ ko jaarale woon ñoom ma wax benn ministre ne rapport épinglé na ko wax na léegi lii ñu ne loolu amut dem ministère des finance daa di nëbb rapport bi suñ ma convoqué tribunal daa di baare yoon bi dóor toj samay oto pour ma bañ a egg tribunal ñu corrompre ay magistrats cour d'appel ba cour suprême ñu ñëw génne seen décision conseil constitutionnel président Badio wër moom dem lu kenn mësul gis ne moom mooy dem décision de justice toogul ñu andil ko ko pour ko bañ a nekk candidat waaye yàlla ay mbiram tey rapport bi ñu doon nëbb ma nga sama kaw table ma nga sama kaw table rapport ba ma nga sama kaw table moo tax yàlla rek a mën te nag dinañ ko jox justice mu def ci li mu ci war a def ndax seen fen boobu ñu doon fen tax na ay nit dee fi tax na ay nit dem fi kaso tax na ay nit ñu gaañ ko te bañ koy def ñoom ñëpp xam nañu dañuy fen ngeen jégal ma ci kàddu gi. kon ma dellu si neneen projet bi yéen yéen a koy porté naka ngeen koy porté bu leen nangu ñu dugal leen ci débat yoo xam ne amul solo. bu bu leen ku jóg wax rek ngeen ne dangeen koy tontu suñu mag Alioune Tine wax na xalaatam est-ce que dafa saaga est-ce que dafa xaste man d'accord mag xalaatam waaye loolu mooy rôle moom jarul xuloo jarul xeex loolu mooy rôle te démb bi nga ko doon def ñëw toog suñu wet naan li ñuy def du yoon néewoon na ci baatu société civile yi ko doon wax di ñu fekk suñu kër di ànd ak ñun di solidarité. moom ak keneen ak keneen Seydi Gassama Birahim Seck ci jamono jooj ñu ci bëri ci ñoom ñi nga woon pale toog ci ñeneen ñi kon tey bu waxee xalaatam buñ ci d'accordul tam nañu ne d'accorduñu ci rek andi ko teg ci teg ko ci xam-xam waaye yooxu beeg xaste beeg ñun santuñu ko kenn lay li ñuy xaar ci yéen fi mu toll nii mooy set formidable force qui est en vous vous la jeunesse du Sénégal toute l'Afrique vous envie ay héros ngeen yéen jeunesse du Sénégal le monde entier vous envie su ngeen xamoon damay xëy suba ba ngoon jot di recevoir ay nit yoo xam ne dégg naa rek ne nañ waruma recevoir ay ambassadeur lan mooy ambassadeur lan mooy ambassadeur est-ce que xam ngeen ni dans un pays normal ñun suñu demoon ba egg fi ñu bëgg a jëm premier ministre du recevoir ambassadeur duñu samay nawle ambassadeur Sénégal bu nekk France du gis premier ministre France ministre sax ministre affaires étrangères sax du ko gis benn conseiller euh, Cyril Ali Élysée la mën a gis wax ak moom su ngeen seetloo bi ma toogee ba léegi euh, page Facebook wala site primature mosu leen gis ñu affiché fa photo ambassadeur parce que man pour man lu ordinaire la recevoir ay ambassadeur te ci resevoir it sama kilifa soo excellence moom ma naan ma recevoir ma ambassadeur tel ma recevoir ko waaye li ma bëgg foofu rek mooy ambassadeur yi ñuy resevoir homme d'affaires yi jóge fu ne damay xëy suba ba ngoon jot bis bu ne ay nit jël seen jet privé ñëw spécialement pour dajeeg ñun wax ak ñun dellu waaye li ñuy wax mooy Sénégal vous ne savez pas ce que vous avez réalisé vous êtes une pour le monde pas pour l'Afrique et vous n'avez pas le droit d'échouer amuñu droit échouer parce que bu ñu échouer liy kase démb dama recevoir benn homme d'affaires bu mag a mag mu jóge fu sori jël jet privé am ñëw ne daf may gis parce que dafa bugga a andi ay investissement ak yeneen ak yeneen mu ñëw ñu toog mu wax ma benn frase bu am solo mu ne ma est-ce que xam ngeen ni ce que sawee avez et plus fort pour l'Afrique que la libération de Nelson Mandela nii la ma ko waxee kon ñun dañu war a xam li ñu yor